moo dem ci apartement meublé daa di sëkk ak benn xale bu jigéen daa di pare boom xale bu jigéen bi bi mu génnee nag caméra de yi gis nañu kuy dugg ak kuy génn si la caméra de yi daa di détecté ki nga xamante ni mooy xale bu góor bi si lañu jël photom si lañu laaj yenn nit ñu ne kii xam nañ ko diw la bi ñu ne xam nañ ko diw la si la joxe numéro téléphone gendarmerie daa di commencer liggéeyam pour localiser xale bu góor bi fan la nekk jamono ji bi ñu localiser téléphone ñu daa di gis téléphone bi si beneen xale bu góor gendarmerie dem teg loxo xale bu góor boobu ba gendarmerie tegee loxo xale bu góor boobu si la xale bu góor boobu yégal téléphone bi de dama ko jënd démb si leen ko ne yow moomoo moo bi mu ne déedéet ñu ne foo jëlee téléphone bi parce que téléphone bi dañuy wër borom dafa faat nit si la ne man de dañ ma ko jaay si tefesu mbuur bi si la gendarme ne xam nga ki la ko jaay waa ji ne waaw mu ngi tefesu mbuur gendarme ne nañu dem nga won ñu ku la jaay téléphone bi gars yi ànd ak gendarmerie dem ba tefesu mbuur ñu gis ngóor soosu nga xam ne moo boom xale bu jigéen bi ca ngor ba ko gendarmerie ñëwee teg ko loxo ne ko yow téléphone bi yaa ko moom moom nangu na ni moom moom téléphone bi ñu ne téléphone bi dañoo gis ne boroom dafa def ñaawtee fële ca mbu euh, ca ngor mu nangu ne waaw moom moo def ñaawtee fi ñu ne ko waaw lu waral nga def ñaawteef bii mu ne dinaa leen expliquer nu mu demee mu ne man ak xale bu jigéen bi danoo waxtaanoon pour maanaam sëkk lu diggante góor ak jigéen di sëkk xale bu jigéen bi daf ma daal di fayeeku pour tëdd ak man ba mu ma fayeekoo pour tëdd ak man ñu daal di juboo ci prix mooy maanaam ñaari daanu la xale bu góor bi soxla woon parce que booy dem si xale yu jigéen ñii di jaay seen bopp dañ lay ne benn nga soxla walla ñaar wala ñett wala ñeent xale bu góor bi daal di ko ne ne ñaar xale bu jigéen bi daal di ne ko ñaar de temps nga may fay si lu xale bu góor bi wax nag du samay wax xale bu góor bi loolu la wax gendarmerie balaa ñu naan Kaliphone fekkee woo dama liir li ñu bind si journal observateur te nee nañu ne loolu mooy PV bi parce que nit ku ne boo defee sa njombe dinañ la laaj lu tax njombe bi nga def ko nga ne parce que kii neexuma wala parce que kii euh, euh, nga expliquer mais moom dañ ko ne lan moo tax nga def njombe bi mu ne njombe bii de lu tax ma def ko man maa dem si xale bu jigéen bi ne dama soxla woon sama bopp xale bu jigéen bi ne boo soxlaa sa bopp am na appartement meublé bu nekk bërëb sàngam dañuy dem foofu bu dee ñaari nërmelu nga soxla ne baal ma Hmm? daanu bi moo mooy gën a leer wala ma ne ñaaru nërmeelu ñaari nërmeelu nga soxla ñaari nërmeelu bi tàngay fay bu dee benn nërmeelu nga soxla temps ngay fay gars yi d'accord si ñaari nërmeelu muy ñaari daanu pour mu clair bi ñu d'accordee si ñaari daanu si lu xale bu góor bi wax mu daal di yëkkati lu nu juboo ñu daal di dem ci appartement meublé ba bi ñu demee foofu nag daal di ko si nekkal di dund happiness di dundu ajana xale bu góor bi def benn daanoom mu defee benn daanoom ba pare mu ne dafa bëgg defaat beneen daanu xale bu jigéen bi ne ko wóowi sama ndey sonn naa fu mu ne nii moom jeexal naa tàkk dama sonn xale bu góor bi it du si dal waaw contrat bi <laughs> yéen ya, rek may reetaan loo sama sama gars yi dañuy dañuy jàngale rek dañuy wax tamit lu lu lu lu lu andi ray bi parce que xam nga affaire Aziz Dabala ba mu amee xamaguñu lu mu demee patati patata ray bu amee rek dañuy expliquer balaa nit ñi naan way yéen a ngi sutura patati patata xaawi wuñu sutura parce que xale bu jigéen bi tudd nu turam photo bi ñu def tamit c'est juste rek genre exemple mais dañoo lire le journal bi bind bu doon xaawi sutura journal bi kon moo njëkk xaawi sutura muy observateur kii nee na yaa ko ko mais journal bi loolu la bind man le journal bi bind laa nekk di liir comme yéen du ngeen lire journal dégg aw ma jot tontu yenn kañe nag bu dee modérateur si yéen a ngi fii rek ngeen di mute kañe yooyu fekkeewuma ko maa ngi France mu ngi xewee Sénégal mais comme du ngeen lire journal bu actualité ñëwee ngeen dégg rek rey na ñu nit Sénégal faaw ñu yëgal leen ne que de bi nee na boo gisee ñu rey nit kooku lii tax bu ko defee ngeen moytu loolu moo tax ñu def live bi pour ngeen di moytu parce que barki dee ma yéen ñëpp yëg ngeen Sénégal faat nañu benn xale bu jigéen mais après bu ñu leen waxul lan moo tax ñu faat ko da ngeen di yeewaat suba it déggaat faataat nañu benn xale bu jigéen parce que du ngeen moytu. moo tax nag ñuy ñëw di ko teg fii pour tey ku doon moytu nga continuer di moytu man fekkewu ma mais journal bi di observateur ba Youssou Ndour moom moo ko bind à la une kon xaawi sutur amu fi dinañ ubbi antenne bi après ñu waxtaane ko fii on continue xale bu góor bi lii la wax gendarme yi xale bu góor bi daa di ne man ñaari yoon laa bëgg gis sama bopp ñu waxtaan ci prix ñu daal di bi ñu demee ba ci appartement meublé ba ñu commencé ko si ni maanaam ñuy tëdd di dund seen gundaandaat bi ñuy dund seen gundaandaat xale bu jigéen bi dem aar do oh xale bu góor bi dem aar benn yoon ba mu soxlaatee dem ardo deuxième fois xale bu jigéen bi ne du si dal de sonn naa dee naa tàyyi naa damm naa xale bu góor bi ne ko du si dal ma nit ñaari ardo laa la waxoon ñu commencé di xuloo si la jël paaka daa di koy jam daa di koy bóom mu sedd guy ci kanamam loolu la xale bu góor bi wax ci kanamu gendarme yi muy nak lu doy war muy lu yeme dañuy rek quelques vidéos après ma daal di ci lenen na fi PV te kuko bind journal observateur ñu déglu li ñu daal di siy nous touti ñu déglu ñu tapote rek dina après luy ardo tu n'as pas compris bon, xamul luy ardo peut-être xalé bu am 11 ans nga comprendre luy ardo yow donc ñu déglu lii. mbokk internetu Seneweb TV seneweb.com gannaaw bañ leen jaajëfalee bu baax a baax xibaar bi nag tey jii lañ ko jot. ginaaw sax ba ko taskati xibaar bi di ngone saliw dal di ko publier ci page am mu nek ab ndaw so xamni dañ ko fat ci ab appartement meublé sa duwaanu Ngor gannaaw nak bañu doxonto sa duwaanu Ngor fi fi xewé lu ñu nak némé ko moy ab ñaari soxna yo xamni kon fofu lañ ñen fek ñom ñaar nak sax jot nañu présenté wu ndax ta ñom nenañu xéritu ndaw si nga xamni mom lañu fat ci appartement meublé bi kenn ki nga xamni mom lañu la waxtanal lam ñu njëkk xamal moy ndaw si nak mu ngi wuyoo ci turu code code nak mom moom Thiès la kon nak dal di ñew fi nga xamni moy fi fii si diwaanu ngir daan si dolem yaayam teela genn lol aduna mu desek ak mamam sa am ben dom ba tay bu ñu si kàddu yi nga xamni kon xaritam bu jigen bi nga xamni ni moo ñu yi ndax bi ñu ñëwee sax nangul won ñu dal di jël image am si lañu xamlé ka ni koddu action bi nga xam ni kon am na ñu ngi ko am ñu ngi ko faté ndiki démb si guddi ba trois h du matin jotee mu nekk ay mbir yoo xam ni daanaka choqué nako ko lool pour mu tim la wax ak yow problème la ndax mbir yi daf ko métti ba ëpp ko loxo loolu nag moo waral mu daal di ñuy nettali ni fa seen bi demee donte nag ba muy am féké ko waaye nag lam ñu wax mooy ay vidéo de surveillance ñoo filmé na fa seen bi demee ji nga xamni kon mo fat ndaw si ñuy wax kot tay atam buñ koy xeyma patay buñu sukkandi ko Mangai xaritam bi ma ngay toll ci si fukki at ak juróom wala sax lu tek manam 45 japp 46 ba 47 ans kiko fat nak ab ben way bu am taxaway la waju njool bo xamni ab jallabe la sol tim ko reyee si la dawee nag vidéo de surveillance yi di koy filmer mom ak kenen ki mu andalon fi mu jëfee jëf ci nag mooy néeg bi nga xam ni foofu la nekkoon deret ci takk fa lool bari fa bari boo xam ni kenn mënu ko nettali bi yëf yi amee nag vers 6 heures jàpp 7 heures du matin lam ñu xamal nag mooy ay gendarme jot nañ faa ñëw ngir xool kon situation bi ndaka la fa demee waaye tamit amal fa li nga xam ne mooy seen i enquête si la ñu baare nag li nga xam ne mooy mbedd yi baare koñ bi nga xam kon foofu la kër gi nekk sapeur pompier bi 6 heures jàpp 7 heures du matin jotee daanaka si la ñu si lieu de crime bi nga xam ni kon foofu la ñu faatoon ndaw si di wax kodd bi nga xam ni kon ay xaritam ñooñu ko nettali si lañ ko dugalee si oto bi daal di koy yóbbu moom kott nag. ba tey bu ñu sukkandikoo si kàddu yi nga xam ni ay xaritam nettali nañ ko daanaka sax wérutoon ndax dafa amoon jabet maanaam ab diabétique la woon mu nee woon kàttan lool te kenn mësu koo dégg si ay coow mu nekk situation boo xam ne ñoom sax xamuñ ñu fa demee keneen koo xam ne si ay xaritam lañu ndaxte ñoom ñaar lañu lam ñu wax mooy moom ak Codou nag dikki démb daanaka toog nañ ba trois heures du matin ba ñu tàqali ko daanaka quatre heures la yëfi xew mu nekk nag loo xam ni ba mu jotee xibaar bi métti woon na ko lool ba xamutoon sax yëfi ndaka la fa tëddee ñoom ñaar nag seeni kàddu tamit mooy ñuy ñaax état bu Sénégal ngir mu indi ay jéego daal di koy nas xool ndaka la ñu war a mën a def ngir jëlee fi li nga xam ni mooy insécurité bu métti bi am si dëkk bi rawatina nag faat gi bëri gi nga xam ni ñi ngi koy faat ay nit si seen biir kër rawatina nag ba si seen biir appartement mu nekk situation boo xam ni situation bu doy waar la waaye nag vidéo de surveillance yi buñ ko liggéeyam su ko defee ñu daal di koy teg loxo. donc yéen a ko déggandoo fii la lépp doore. xaritami wax nañu keroog ba koddu gi génne àdduna nee nañu ñoom ñoo nekkoon ba trois heures du matin fan la deewee wala fan la gaañoo ci appartement meublé appartement meublé bi dafa amoon caméra de surveillance caméra de surveillance bi daa di capter ki nga xam ne dugg na ak code ba nu génnee li nga xam ne moom la caméra de surveillance wone wone na xale bu góor bi bañ ko wonee yenn nit ñi xàmmee nañu xale bu góor bi daa ne kii diw la am sax ñu ne yor nañu numéro téléphone si lañu ne nañ ko jox gendarmerie pour ñu mën a localiser ki ñu gisoon si caméra de surveillance yi mu daal di dugg code ci appartement meublé bi mu daal di génn waaye compte ba ñu ñëwee dañoo fekk dafa de ñu tàppate rek s'il vous plaît sama gars dinaa leen jël après léegi ba gendarmerie jëlee numéro téléphone xale bu góor boobu commencé pour localiser ko ndekk jamono jooju xale bu góor bi jóge na Ngor daw na dem Mbuur ba mu eggee Mbuur moom xam na ni que ñu bëri am nañu numéro téléphone am xam na ni que mu ngi suivre réseaux sociaux gis na ni caméra de surveillance am na kon moom dinañ ko xàmmee ba nar ko localiser si le préféré jël téléphone am daal di koy jaay pour moom bu jëlee téléphone am daal di koy jaay dindi puce ba gendarmerie dootu ko localiser ndeke nag xamul ne même boo tojoon sa téléphone sax mën nañ ko localiser si la gendarmerie commencé liggéey bi daa di def géolocalisation bi ñu daa di localiser téléphone bi ba ñu localiser téléphone bi ñu dem ñu jàpp benn xale bu góor ñu yóbbu ko brigade bu Saly Portudal bañ ko yóbbee brigade bu Saly Portudal ne ko yow téléphone bii boroom la ñuy wër parce que dafa def musiba démb si guddi mu daal di leen yëgal ne man de borom xaw ma ko téléphone bi sànq lañ ma ko jaay wala démb lañ ma ko jaay si tefesu mbuur gendarme ne ah dañ la ko jaay mu ne waaw xam nga ku la ko jaay mu ne xàmmee naa ko bu baax bu ñu demee tefesu mbuur ma ne leen diw moom ko jaay si la ñu dem gendarme yi ànd ak waa ji dem tefes bu mbuur bi ñu demee tefes bu mbuur ñu fekk fa waa ji ñu jàpp ne moo faat xale bu jigéen bi ca ngor gendarmerie ñëw daal di koy teg loxo si lañ ko yóbbu moom it brigade gendarmerie bu Saly daal ba ñu eggee brigade gendarmerie bu Saly Portudal si la ñu commencé seen enquête naka yow téléphone bi yaa ko moom mu nangu ne waaw moom moom moom bi mu ne yaa ko jaay kii mu nangu ne waaw kii maa ko ko jaay donc kon loolu mooy kooku jëndoon téléphone bi moom ginnaawam bandang bu doon téléphone bu ñu sàcc la moom buñ ko ko jaayee mën nañ ko toppee comme receleur mais comme du téléphone bu nu sàcc comme man sama téléphone ma moomal ko sam bopp ma jaay ko loolu mënoo si topp nit receleur heureusement maa moom sama téléphone ma jaay ko nit nit kooku fuñ ko jàpp day ne Kaliphone moom ma jaay téléphone bi bu doon dafa jël téléphone bi sacc ko ci kenen yow mën nañ la téye parce que yow receleur nga da nga jënd alal go xamné ne moo donc motax tax dañ koy bayyi mais si la ñu jàpp bi nga xamanteni ni moom mom téléphone bi en personne si lañ ko commencé di déglu ne ko yow dafa am jëya bo def pour yeen ñi doog ñew motax may récapit après dinaa ubbi antenne bi ngeen wax danoo xool si ay caméra de surveillance ñu gis sa kanam kii yow la mu nangu ne waaw moom la nga àndoon fi ak benn xale bu jigéen di dugg si benn appartement meublé mu nangu ba léegi moom la nga génnaat xale bu jigéen bi génnul te lu si gën a garaaw danoo ñëw ñu fekk xale bu jigéen bi faatu mu ne waaw moom la ñu ne ko kon léegi jàpp nañ ne kon yaa ko boom mu nangu ne ko waaw moom moo ko faat ah sëñ bi lan moo tax nga faat xale bu jigéen bi dala ameel xaalis règlement de compte la si la commencé expliquer gendarme yi lan moo tax mu faat xale bu jigéen bi ñëwoon naa si sànq nag dafa am ñuy doog ñëw war a mën a comprendre kon lu xew xale bu góor bi daal di expliquer gendarme yi ne xale bu jigéen bi maa ko faat bu ngeen gisee ma faat ko du lenn lu dul man maa soxla woon sama bopp ma dem si benn bërëb fekk fa xale bu jigéen bi ne ko damaa soxla sama bopp xale bu jigéen bi ne boo soxlaa sa bopp man it mënal naa la ko mais danga may fay temps si lu xale bu góor bi wax mu ne ko lan nga soxla woon da soxla woon tëdd ak man benn yoon walla ñaari yoon wala ñett yoon wala ñeenti yoon xale bu góor bi daal di ko man dama soxla woon sama bopp ñaari yoon mooy maanaam nërmelu deux xale bu jigéen bi ne ko temps nga fay si lu xale bu góor bi wax nag du samay wax ba léegi te observateur moo ko bind nee nañu xale bu góor bi loolu la bind buñ le sutura kali xaayuma sutura dama la observateur yi ko bind euh, euh, journal bu Youssou Ndour ba ba sutura de dañuy jàngale dafa am ku dee lan moo tax ñu ko kon gisuma fi xaayu sutura bu ngeen mënta seetaan rek ngeen dem wala ma bloqué leen rek comme dab j'ai bloqué plus de mille personnes ma sutura te ñii di déglu xam nañ ne kali xaayuwul sutura affiché wu ma photo xale bu jigéen bi waxuma si xale bu jigéen bi xale bu góor bi ko boom moo expliqué gendarme yi lan moo tax mu boom ko version la waxuma ne nit loolu moo am mais moom loolu la wax kon gisuma fi xaawi sutura sincèrement parlé ngeen arrêté nawuma version bi mu wax noonu la demee parce que fekkewu ma mais enquêteur bu la jàppee nga sàcc dina la ne lan moo la poussé nga sàcc wala mu jàpp la nga rey dina ne lan moo la poussé nga rey nga expliquer ne lii moo tax ma rey xale bu góor bi bañ ko jàppee ne yaa boom xale bu jigéen bi moom nangu na ni moo buum moom nangu na waaw lan moo tax nga boom mu commencé expliquer ne lii moo tax ma boom loolu la ñuy expliquer sénégalais yi bu ko defoon it ngeen ngeen sóoraale ngeen moytu ngeen gën a moytu moo tax ma def live bi xaay wuñu sutura kenn kiy dem yàlla na ko yàlla yërëm mante du ko juger mais damay expliquer lii nga xamante ni moom la procès verbal bi wax selon observateur yenn siti daa di koy jël ma daa di koy jël si siti mu ngi ci Facebook te ñu bari si TikTok du ñu suivre Facebook du ñu lire article man dama koy liir xale bu góor bi daa di ne man dama soxla woon sama bopp ma bëggoon daanu. ma dem ci xale bu jigéen bi mu ne ma pour nga daanu temps nga may fay ñaata daanu sax nga soxla yow benn wala ñaar wala ñett wala ñeent xale bu góor bi ne ko bu ma amee ñaari daanu baax na xale bu góor bi daane ko ñaari daanu de xale bu jigéen bi nee na ko temps nga may fay ñu dem ci benn appartement meublé mu ngi ngor ñu juboo bi ñu juboowee ñu daal di dem ci apartement meublé ba ca ngor ñu nekkal ko si waaw bañ ko si nekkalee xale bu góor bi daanu na benn daanoon si lu mu wax ñaar la ñu waxante woon kon war ma des beneen daanu xale bu jigéen bi daal di toog daal di ne sonnu naa sonn naa de mënatuma xale bu góor bi ne ko ah contrat la de. Mm-hmm. contrat la ba ma ñëwee dam la laaj ba ma dam la laaj na ñaar la bëgg comme ñaar la ñu siñante nag sonno it sama ñaar dina ko jël contrat ñaata wër ngay def si kër gi 2 mois 3 mois 4 mois lu ñu signé la ñaata daanu nga bëgg ben lañ koy signé wala ñaar wala ñett nga wax ma ta ngay fay mais xamna ni xalé bu jigen bi wala xalé bu goor bi andala buri la jël melni fass moo taxit moytu rek affaire yi du du du du suppu kànje waaw du suppu kànje du dibiteri jigéen bi ne yii man kay parrainage yi beneen daanu kay doo ko mën a def parce que wax dëgg fa yàlla sonn naa je suis épuisé dee naa wet hmm, ma xam ne xale bu góor bi nag jàmbaar la nag hmm, jàmbaar la xaw ma lu mu jël nag xom lu mu jël mais jàmbaar la xale bu góor bi daani ko ne bu ma daanuwul dinga ma delluwaat sama xaalis parce que man ñaari daanu laa waxante woon ak yow xale bu jigéen bi ne du si dal ñu commencé jàppante xuloo ndeke xale bu góor bi baraaye woon na paak daa di koy dëbëj xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi sedd guy ci kanamu xale bu góor bi loolu la xale bu góor bi wax nee na xale bu jigéen bi sama kanam la dee sedd guy deret bi yépp ci biir néeg bi xamul nu muy def mu daldi génn ndànk daal jël oto daal ñëw mbuur bañoon ñu localiser ko mu jël téléphone mu daldi koy jaay balaa ñuy ñëw si yeneen témoin nag euh, dinaa leen ubbil antenne bi ngeen def demande parce que lan moo war a mën a pousser tey xale bu jigéen muy wax ak góor di ko jaay boppam lu ko jar ci kaw suuf te mu ngi am Sénégal ah, du ngeen mën ne amut mu ngi am mu ngi am de ku bañ lu mel nii daal la nag ëllëg boo deewee ñu toog fii si réseau yi di wax bu dee yaa ngi ci nga génn si dama ni ñun ñep ñu ni Sénégal mu ngi Dakar mu ngi Mbour mu ngi Tamba mu ngi Kidira mu ngi parcel mu ngi yof mu ngi fep mu ngi am di nga gis xale bu jigen bu gaddu saakam ñew taxaw ci territoire auto garé ne ko ñaata ngay démé mu ne ko 10000 wala 20.000. ñu and dem wa siyasal ñu and dem après ñu boom la fa wala nga kon it après gars yi dañ koy waxtaane fii de parce que yàgg ngeen dégg ñu ne xale bu góor ak bu jigéen dem nañ ci appartement xale bu góor ba dee na yaa gi ngeen ko dégg de gars yi nañ tappate live bi s'il vous plaît nañ tappate TikTok daal man fan yi andi la may jafe-jafe trop ba si TikTok bi léegi da ngeen di gis ay live jigéen di joxe numérom naan ku bëgg ñu defal ko lu neex ñëwal Kër Massar ñëwal ci numéro bi ba ci commentaire yi da ngay gis nit tudd fii naan Amina la bon Amina la pata di joxe ay numéro téléphone yéen a teg seen bët donc nag man gisuma lu ko jar nga yeewu amoo loo ndékkee waru mën a pousser nga gàddu sa saak dem taxaw buntu ponti wala buntu almadi dinaan dëkk bi dafa dëgër amoo dara loo def lu dul ngay jaay sa ndara payen bi te bëri na de xale yi jigéen ñu bëri ñu ngi koy def di jël ay appartement meublé sa papa sa yaay sa maam dund nu ba dee xamuñu luy appartement meublé mais xale yi jigéen ñi tey ñoo bëgg luxe bëgg nañu greffage u cheveux bëgg na nañu iPhone 16 bëgg nañu di dem baatre Wally Seck di baatre Sidi Diop te xëyuñu gontuñu loolu moo la koy indil nag mais boo doyloo boo doyloo nga yeewu di lekk sombi da lay gënal nga gàddu sa saak naan da ngay dem taxawi buntu pikin di stop oto mu ne la ñaata la nga ne ko dix mille wala vingt mille parce que xam ngeen ni kii nag ni mu deewee nii doy na waar